aywa bisimilah.
waay saaju saairina wa masrahul mubtahilin waaw waaw saaju saairina wa masrahul mubtahilin ma maa ko tuddee noonu nag waxe gaa yu baax la mu bismillaahil abadi ci tur yàlla ma fi nekkoon di wéy nekk xam nga ne amutub dayoo amutub tàmbalikaay al ahad may kenn moom la wolof di wax cappaatuli kenn xam si fu mu jóge xam si fu mu jëm bismillaahi ci tur yàlla allahu nag mooy turam wu màgg wu tedd wa mooy tur woo xam ne kenn tudd ko moom képp ko moom allahu amut moo tax kenn mënu ko firi du firi du firi got du firi dara du firi jë du du doon ko de allah rek la amut benn langa bu buñ ko mën a firi alwaa du du yàlla war na moom yàlla la la jële yàlla waaye du du allah ba tey alwaahi du may kenn kenn la ci jëmmam ja wéet na mel kenn melu ni kenn la ci melokaanam ya melokaanam yi ni mu tedd kenn melu ni kenn la ci jëf yi jëf yëpp joo gis lu mu lu mu wute wute yàlla kooku mooy alwaahid al ahad kenn la nag moom waahid mën na koo bokk kenn waaye ahad du bokk kenn wéetam nga fii dañuy tudde al waahidiya kii di al ahadiya wéet fii ahadiya ga daay wéet ak boppam dara nit ko fi woon te dara dana dem ba dara du fi ne kooku mooy al ahadiya oh bismillahi tudd naa yàlla al mutafarridi bil kibriya oh moom mi nga xam ne daay wéete màgg lool kibriyaa mooy koo xam ne daa màgg di di di wane boppam al kibriyaa daa màgg di wane boppam wala na man jaxat yàlla rëbb na képp ku weddi ku weddi ne moom dong moo tax al kibri al kibriyaa u ridaa i nee nag rëy dëgg dëgg maa ko moom sama baraat la wala asamatu disaar yi asamatu mooy sama làmbaay man naa sax ni waaxidan min ha min huma kuma kuma ko xaccoog man benn ci sama làmbaay yooyu xasaftu ko fi naari wala ubali addis ba na na xaw ma ba xam dama ko riwaayee ci maanaam wala bismillaahi tudd naa yàlla allahu mooy tur yëpp ci moom ci moom lay delloo allahu arrahman arrahim allahu alkarimu arrasaq allahu rek la allahu rek la yi si yëpp ay melokaan la almumsikul ajsaam bi ruuxi tadbiir ki nga xam ne moo téye lépp ci ruuk saytu loola lépp loo gis mu taxaw yàlla ko saytu su ko bàyyee loola seey moo tax la laataa ko suko séntu ci wàllu mu yàlla du gam-gam yi sax far bay nelaw ndax kon bu gam-gamee lépp yàqu min xëy na amat ay ajisaam yooyu nga xam ne asamaane yëpp da koo téye ba noppi te amut ay kenu subhanallahi amay si woon tudd naa sellug borom bi ci la ñuy melal yàlla kenn la noo ko melal melu nii ëpp na loola bu dee lu baax la ilaahana yow sunu boroom itimis na nga gëlëmal an naa xëy xëbattana ko wala nga far ko xëy xëbattana kor ko de moom lëggi lëggi lëggi lëggi ba fi yàlla fàtte yàlla ma fàtte fàttali ko tanakkur fàtte fàttali ko mas ko mas ko mas ko yàlla mas ko daal mel ne yow kan da ngaa am bu yàlla joxul da mën nga am ngaan oh man am na xaalis man nagam oh nit ñi yow diko yi inna xëy xëwa tanakkur yi di saarul jahilin maanaa maanaa léegi maanaa naa léegi di làqatu yàlla di wan ne ko yow yàlla man mën na maa am te doo am te te mën naa am te te ma jox loolu mooy mbaanum ñu ñu ñu réer ñu. ilaahana yow suñu borom atay naaka taa en dikk dikk nañ la wa di di way topp wa asharat ilayka al arwaaxu bi taqadis arwaax ya day ña nga lay junj ci di sellal sa xadra ba taalibaati ruq yi ilaa maqaani ay jalaal ruyaa ngay sàkko ne dañoo bëgg a yéeg ca siis yu màgg ya jalaalu lay taalaa wéetal yàlla ga jox ko gëddaam min kursi yi kel fasiya ñu ñu ñu jógee ci sa siis bu yaatu ba wa matraxi nuurika rashid ak ak ak ak fa ñuy fa ñuy fa ñuy jëleñ jëleñ ci ci sa leer gu jub ga leer ga mooy bu joxe ñee kooko topp ko topp àgg kon de yàlla ñi ngi lay saraxu fa xaddis hunna yàlla na nga sellal sunu sunu ruuya bi ay digal matiin ci sa jëf yu tedd ya yu dëgër ya rakadat nufuusul uli basair borom gis-gis yu neex ya ñoom day seen bakkan yi daw nañ ña ngay ña ngay daw isa ramaxat naxwa arasaati daw ikal karim ay waay bu gend ko sa ëttub leer gu tëdd ga ina daw akal karim aka sa leer gu tëdd ga de xiyaasu mustajirin mooy xettilukaayu ñi nga xam ne dañoo bëgg a mucc jeex na fi lay wax al imamaani nee na al qutbiyatul kubra nee na wal imaamu wa rasulu wal insaanu kaamil al jaamic li haadihi al maratibi kulliha ku wax loolu Ibnu Arabi ku wax loolu Ibnu Arabi wax ndeysaan
teet teet teet teet teet teet teet teet ثم لقنا الحسن حبيبا العجمي أوه. ولقنا حبيب داود التائي ولقنا داود معروف الكرخي مو- وين يا إمام جندي ولقنا معروف السري السقطي ميسر الجنيدي و- و- وولقنا أبا القاسم الجنيدي بن محمد البغدادي وهذه سلسلة باقي المسائل كان كان يبكي نجار
ba egsi seen ko
آه، كركر وي كركر kaarkaar لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي وي هنا في تقف أولياء الله الموصومين بالأقطاب والأوطان اعلم أنا سالك هو السائل إلى الله سالك ما يكون الوقت إن شاء الله أو متوسط بين المريد وال- وال- والمنتهي سائر سالك بما يكون عن ديانة المريد بأك أك أك كوكو لين في سالك ku génne këram ku génne ci naax ji ku génne ci boppam jëm ci yàlla wutale yàlla wa wa wa man yaxruj min baytihi ku génne ci boppam ci ci bakkanam jëm ci yàlla wa anibu ilallah wa anibu wa anibu ila rabbikum yàlla bi ko moom dellu leen ci leen moom saytu leen di leen defal lu kenn moom wa anibu loolu mooy na nga génne ci sa bakkan jëm ci yàlla kooku mooy salik léegi do kooku dog na yoon wax bokk teg murid bi murid bi moom murid la waaye gën a gudd këram wa maa daama fi sëy yi fii mu ngi dox rek wa sëy wa asati axsaam dox dox ba yett la lillahi fillahi billah oh ay maa ngi jàmbaar la am nga la si lillah li nga xam ne yàlla da ngay dox ngir yàlla ngir yàlla waxu yënte yi ilallah ma ngay jeexee ci àgg ci yàlla wa man la si fillah li nga xam ne da da ngay dox ci- ci yàlla nag laa ñu xëy yënte la amatul dayoo wa man la si billah li nga xam ne ci ci kàttanu yàlla ci ci ngay doxee foofu foofu foofu maqaamu takmiil yàlla matal la nga mat fi xaalati saaral samuhu wa basaruhu wa lisaanuhu wa yaduhu wa rijluhu lillahi billah nga xam ne léppam rek gisam ak loxoom ak lu muy def lu nekk rek yàlla maanaam le- le- leeru yàlla moo moo cee daw ah foofu la xalaat wutale woon kon oh waaw xanaa bu koy xanaa xalaat ci xanaa dafa jóge nefa rek kon dafa ne mais aani la laa yatasarrafu fi ilaa bi kon moom léegi bu koy def rek yàlla la wa suluk nag dox ba nag wa seyru fi l xaqiqati shay'un waahid benn la dox lépp lépp lépp dox la mu ne yaqamu tagaayuru baynahuma bi hasabil intibaar da- danañ waroo nag ci kéemtulaay considération bi wal xaasilu ana sayra maxsuus bil baatin sayru moom foo ko fekk baatin la jublu sulug sayr si sulug mooy ci nga bëgg a jikkoo jikko melokaano melokaano mag ña bu dee nag sayru nag mooy ngay dox dox mag ña kon kon ni mu ko xool ne waroo kon ne bet lañ mu ne wa sayru waxu fi lxaqiqati safarun min alxaqi ila alxalq bil qalbi wa waaw wa sayru baatinan nee na sayru dox boobu mooy nga ci dëgg-dëgg mooy nga nga nga tukkee ci yàlla jëm ci bindee yi ci sa xol di doxe doxu biir asfaaru arba indihum tukki yi ñeent la ci kàngam ya al awalu mooy lan huwa sayru ilallahi fi manasiri nafsi lil ubxir bi mooy sa mooy ngay dox ci manasiri nafsi yi nga xamante ne al anfusu saban yooyu ñuy wax waxee nihaayatu maqaami al qalbi wa mabdaw al asmaiya xol bi daal di foofu la yem asmaiya daal di ñëw tur yàlla yi dox ci tur yàlla yi asaani sa safaru billah mooy tukki tukki tukkee yàlla tukkee ci ci kattanu yàlla. bi isaafi bi sibaati yi nga meloo melokaanam ya daa xoox nga jéem a dund turam ya moo tax man loolu fee ma ngay jeexee ci asmaa ya. njëkk bi te la ufaxil ala te ufaxil mu bind fii ufaxil ala nga xam nga xamante ne mooy nihayatul xadral waaxidiya nga xamante ne yow foofu la waaxidiya ci xadram saalis wa taraqi ilaa aynul jamci mooy nga yéeg jëm ca aynul jamci waxdatul ahadiya lépp nga nga def ko gisandoo ci leeru yàlla waxu maqaamu qaaba qawsayni aw adna maqaamu qawsa qaaba qawsayni maa baqeetul isniya ñaaro du du du foofa dafa am daa dafa am al isniya gi ñaaroo ga bu yëkkatikoo foofa foofa maqaamu aw adna waxu nihayatul wilaya foofu nag la wilaya moom arabi ñeent ba mooy asayru billah anillahi li takmil nga nga nga nga dox ci yàlla ba ba noppi mel ne da nga faa ba yàlla ngir ñu ñu matal la mooy nga yi nga tàmbalee ci kaw jëm suuf ngir taxa ko boobu fa yàlla de waxu maqaamul baqaa i ba'dal fanaa nga am baqaa nag ginnaaw ba nga jeexee ci yàlla ba'dal jam'i jeexal demee ba nga xam ne lépp day nekk ci lenn wa li kulli waahidatin min haadihi al asfaar nihaayatun kama kaana laha nihaaya kama kama kaana laha bidaaya fa nihaayatu safar jeexeetu tukki al awal ba ba ba mboxoon mooy raful xujub xujub bi kasra an wacc waxda li ngay seen mu bare lool ñaan góor jigéen ginaar xar loolu lépp ki ki ki yaay loolu loola day dañ nga xam ne almaxluq rek am ونهاية السفر الثاني هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكسرة nga xamante ne kiiraayul lépp nekk benn ci yu bari yi day deñ nga xam ne yi di naaka xaalis naaka maxluq mu ne kon ñaari safu rabia inda rujuwaay ajal xaq
saalis saalis bi saalis nga safar saalis huwa sawalu taqyid bi didayni nga xamante ne du- ne ne ne ne ngay wéccee dara fenn al zahir wal baatin lépp lépp lépp nekkaat benn fi ahadisi aynu jamia wal awalu wal zahiru wal baatin nga xam ne boo xoolee fii gis lii boo xoolee fii gis lii yàlla mooy zahir li nga gis zahiram la li li nëbb mooma baatin loolu la moom daa xat lool daa xat a xat a xat bu xat safar rabi inda rujuu ani xaq ila xalq yi nga mel ne dangaa jóge ca kaw jëm ci suuf fi ma xam ne istiqaama ne kocc ca la ñuy wax sharia la ñuy huwa ahaditu jamay wa farq nga xam ne da ngay li la li la tudd maqaamul jamay wa farq nga xam ne da da ngay tàqale diggante yàlla ak bindaafam yi sharia yi dox kon bi shuhudi indraajil xaqi fil xalq nga xam ne da da ngay da da ngay gis ci bis sa sa sa xol loo xool gis gis ca yàlla leeram nga fekk maam ba lu tax mu bind ko wa iddi mixlaalul xalqi fil xaqi nga gisaat bi it ne bindaafam yi amuñu yàlla tigi moo am mu- mu ne xataa yaral ayn al waaxida fi suwari kasrati bi fi ayn al waxda ba mu gis lenn jëmm ju nekk benn ci melokaan yu wégg yu wuute yi ba noppi nekkat benn nga ne ci kenn kan nga ci ngay xool lépp lu xoromu laa ilaha illa allah mu ne almajsuubu mooy kan man istafaahu alxaqu taala waxtassahu bi xadrati unsihi wa taharahu bi maai qudusihi فحاس جميع المقامات بلا كلفة المكاسب والمتاعب mooy suuf dëgg nga xam ne ku mel ne Cheikh Fall mooy koo xam ne yàlla da ko tànn jagleel ko mu dëkk ci xadratu unsi yi wéttali ko yàlla mu laabal ko ci ndoxum mu sellam ma mu am maqaamaat yëpp ci sunu du du du xam ne moom du du nekk di wut maqaama ya du am coono wa asaabul jazabaat gaa yooyu nga xam ne dañuy gis bu ñetti xaaj lañu majzuubun xayru saadik daa am koo xam ne daa nan ba mandi te la ko nandal ci sangaram su tëdd sa te moom sóobuut yoon ma nag nga ne moom moom amul atte wa saalikun majzuub koo xam ne da daa sóob ba càgg ñu xëcc ko mu ne wa majzuubun saalik koo xam ne kat moom it maju sóob la waaye nag daa aw ci yoon wax kii aw ci yoon nag moom mën dem sëriñ waaye maju sóob képp ma xam ne mu dem sëriñ maanaam daa ko leeral amma al awwal mooy maju sóob xayru saalik foo si asana ilayhi kon moom ne junjee na ko wama saani foo si islubu tariqa suma yaxsul fi asnaahi jazubatun wa yakunu bi bi xukumee koo xam ne dana góorgóorlu ba ci yàgg ñu xëcc ko lu ko su daaw waxee ca waxee ca foofu sëy ni foogum tu majzuban ilayka minka ok dama dama ne bëri jëm ci yow te ci yow laa jóge
nelaw naa ba yeewu sax ndax wax ji
foogum ah wax dëgg neex foogum tu majzuban ilayka minka ilayka minka fi ma jógee la la jëm kooka nag kooka nag mooy mooy kër bi digg moom moom fa yàlla la jógee xam xadra ba wàcc ngir mën a jëriñ nit ñi wax dëgg waaw wax dëgg neex ay waay mu ne mu ne yakunu bi jox ko mi gis booba fa mu toll rek fo atte ba lay jël loolu lu fet la wama salik foofu la si yaxsul lahul jazba su ma yusluku tariq fa kumtu majzuban ilayka minka su ma yeslu ko tariq wa yeslu il maqsudi bihima nga xamante ni te ne moom day am jeex bi ba noppi soog a soog a dox fa kuntu ma ji suuban ilayka mooy suluk bi min kaa ma jóge ci yow nag nga def foo ma jóge laa jóg wal wal waasilu ku àgg dëgg ci yàlla wala si yasilu ilallahi taala bil fanaa'i jeex ci leeram ya wala wal baqaa'i bihi des ca leeram ya fi maqaamil mahabbati tàmma sopp yàlla dëgg ba lu mu ba lu ko soob soob la lu ko neex chitu lazi shaa al ilahu wal ilah ah wallaay ah chitu lazi shaa ilahu wal ilah shaa ah xaw ma nan maa ah chitu lazi shaa al ilahu wal ilah shaa al lazi chitu bilaa durin wala ya yàlla lu ko soob soob ma lu ma soob soob ko wa huwa sayratul muhib wal mahbub ci an waxida nga ne day mujj biir woowu da- da- mooy le- lenn la sopp bi ki sopp yàlla ak yàlla mi sopp benn la surtout la si maaminta wàññi ko surtout la si sha al ilahu wa ilah sha al la si surtout bila durin wala kuntu samaahu wa- wa basara wa- wa waqaalu koo koy xalaaj ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani qad xalalna badana oh sa absatu xat absatini sa absatini xat xat absatu sartu kon kon kon kon dañ daal di nekk benn ñoom
neex na kay léegi fii nii asayru saani fi mu la wax naan xaaba xaw say ni aw adnaa foofu mooy yemukaay bi maanaam ci ci ci doxub ñaareel bi rek lay wax wala wax jëttale ba gën a la ana moom ñettale ba la taraqi ila ayni al jami xadarat al ahadiya wa mu xam xam xaw si mu mu ne foofu mooy nihayatu say moo ñettale ba ah ñetteel ba léegi nag léegi nag maa bakkee ci is na yi nii sa tafaat is na yi nii di nag waa ji bu bu yëg boppam te te fàttali boppam waaye su su fàttee boppam nag loolu mooy maqaamu awaa gën a waxoon ni ne ni xel bi nihayatu wilaaya xalaas seetaatuwaat maa ngi lay wax de.